merci beaucoup de votre fidélité renouvelée à votre chaîne préférée la M4 TV amaan mbégte bokkaat ak yéen jotaay bi fas yéene waat yi euh, actualité maanaam tolluwaay réew mi ci pañ yu bari euh, comme ni ñu koy defee saay su ne jëwriñ lañ ciy àndal ñu fas yéene waxtaanee euh, actualité Diori ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi nga nuyu ak mbokki internet M4 TV. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman Adama ñoo ngi lay fay di la nuyoo di nuyu mbokk internetu diaspora bi ak euh, national yëpp ko. M4 TV merci beaucoup. Mm-hmm. mi sax fàtte naa nuyu waa diaspora ndax ñoom itam dañuy suivre bu baax a baax tey. Euh, ci ñun euh, lañu bokk dañuy suivre bu baax dañu bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu képp euh, koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel la M4 TV waxtu yu bu jotee ñu ànd ak jëwrin waxtaan yi actualité bi ci njëkk nag jëwrin moom mooy le bilan bi nga xamante ni ñëpp actuellement ñu ngi koy waxtaanee mooy le bilan du ba Bassirou Diomaye xayma ko ci 100 jours. Mm-hmm. donc 100 defe naa ne mooy ñetti weer ak yu toftal. Mm-hmm. ñi ay fan donc boroom jàngat le bilan bi nga xamante ni son excellence euh, def na ko Bassirou Diomaye Faye et bien vrai que am na ñu naan waruñu ko tuddee bilan parce que ku am mandat wu 5 ans nga def 100 jours ñu bëgg la defal bilan dina compliqué mais par rapport ak les actes yi nga xamante ni jot na ko posé peut-être on va entrer le fond wax ci contenu bi mais la forme bi nga xamante ni son excellence mi ngi koy gouverner ak ses équipes nag nga ko jàngatee. waaw man ni ma ko jàngatee mooy que. xel dal na parce que cent jours yi def na ci ay action yoo xamante ni ay action yu jar a félicité la parce que le fait que euh, wàññi niñ ci dund bi fay ci uni fay ci étudiants yi seeni bourse euh, euh, fay ci boru agriculteurs yi financer engrais bi fay boru hôpital yi cinq principe gi noonu yoo xamante ci trois mois nga def ko ba pare boole ko di assuré di fay say salaire donc déjà ci ñetti weer euh, ci koo xamante ni ba ngay ñëw vite budget bi voté nañ ko ba pare tu vois donc ak dëkk bi situation yi ñu ko joxe woon nga xamante ni c'était un peu chaotique préparé wuñu woon dara gis ko di jours lañ génn palais euh, prison dugg pale effectivement te xam nga état ñi nga xamante ni c'est des opposants wala c'est des nouveaux élus wala ñoo xamante ni dañuy am projet pour nekk euh, ay euh, pour diriger dëkk ñooñu sondage bu leen wanee ni am nañ chance pour gagner dañuy commencer préparer ñoom seen état ak seeni partenaires avant ñuy dem ci élection dëkk yu dëkk yu normal yi noonu la ko da gis ni ñoom dañuy préparer wala leneen ni ñooy gañe avant élection yi di ñëw préparer nañ état ba pare xool seen collaborateurs yi xool naka lañu ñu war a yan relation la ñu war a renouveler ak yan mbir xam situation dëkk mais ñi boo xoolee ci perturbation ak euh, ñàkk xam ndax élection dina am wala du am ci condition yooyu lañ leen fale donc euh, ci ñetti weer yi pour man hmm, kenn mënu ci juger kenn man personnellement dama wax ni état balaa nga koy mën a juger dëgg-dëgg sax faw ñu dawal ñaari at faw ñu dawal ñaari at parce que tamit xam nga nekk si biti di wax li nga yéene bokkut ak boo demee ba ba ba nga nekk ci biir ko ba jox la responsabilité yi nga war a jëf effectivement te su boobaa yow mënoo jëf lu dul li fi ne hmm. <laughs> loolu nga mën a jëf loolu rek nga mën a def parce que mënoo fee mënoo joxe loo amul boo digle woon asamaan sax bu fekkee ne boo ñëwee li nga fi fekk loolu rek ngay mën a joxe quoi par ak la nga doon wax donc li ci des mooy après perspective ngay def yéene xool li fi ne lan nga mën a déjà da boo ñëwee bilan ngay def bilan boo ñëwee da compte walla compte ngay def li nga fi fekk li fi baax. mu jar a li fi boot loo xamante ne dañ ko war a dindi waaw après nag foofu ngay doog a nag objectif fi nga jëm mais da ngay tàmbalee def ci li nga xamante ni loolu moo fi nekk loolu moo possible ci loolu ngay tàmbali waaw donc euh, ñoom déjà liñ jot déggee euh, c'est un bilan satisfaisant xam nga mënoo ko tuddee sax bilan mais def nañ ay action yu remarquable quoi yu jar a félicité ko <laughs> def nañ ay action yu jar a félicité ba pare nag bon ñu xool euh, d'ici euh, d'ici un na lan la ñuy def fan la ñuy yóbbu mbir yi daal mm-hmm. waaw pour man euh, ñetti weer yi ñu fi def xel dal di ci ko mm-hmm. xel keneen nekk nekkoon journaliste sax lay wax Euh, nekk itam nekkoon itam ministre conseil su Macky Sall muy Abdou Latif Coulibaly nii bu dee gouvernement bi 100 jours lañ def def nañ téeméeri faay naka nga ko jàngatee. est-ce que lib na faay yi. Ah, téeméeri faay de bari na moom. est-ce que lib na ci benn wala ñaar sax. Mhm. Hmm? est-ce que liir na ci benn wala ñaar. xam nga loolu tamit dafa yomb quoi nga wax nii rek sànni parce que léeg-léeg nit day wax pour provoquer parce que nit day léeg day wax pour def animer galerie bi quoi wax yu politicien quoi mais bu fekkee ni moom daa bëgg dimbali état bi mën na leen critiquer mais na wax faa yi après ñu mën ko xam ñu mën a xam lan la quoi mais wax noonu rek sànni nga bëgg ñu tontu la ci li nga wax sànni loolu ku am xel sax du ko def ko mm-hmm. waxi mbedd rek lañ koy jàppee quoi mais ñu wax faay yi après ñu xool parce que nit ki tamit révélé ko ay faayam da koy dimbali no léegi na wax faay yi mm-hmm. <laughs> eh, déglu nga itam euh, kàddu yi nga xamante ni moom la Abdou Mbow wax euh, mu mm-hmm. jëm ci immigration clandestine euh, donc 86 personnes ñoom ñoo réer ci géej gi moom mi ngi interpellé le premier ministre Ousmane Sonko peut-être ci ay kàddu yoo xamante ni doon na ko wax ba mu nekkee opposant mais moom Ousmane Sonko ñetti weer la fi defagu mais ñoom seen douze ans yi ñu fi def yëpp est-ce que mos nañu dégg Macky Sall dem jaale ji famille ñi nga xamante ni ñoo disparaître ci géej gi est-ce que mos nañu dégg ñoom ba ñu nekkee ci seen pouvoir gouvernement bi jël ay mesures yoo xamante ne pour freiner. immigration clandestine bi est-ce que est-ce que est-ce que est te moom sax xamul ni gaal googu nga te ni moom moo daanu gaal googu jógewul Sénégal gaal googu jógewul Sénégal donc gaal gu jógewul Sénégal lan la ci président man hmm? et puis président keroog ba mu demee Ndar waxu leen ni solution bi nekkul ci gël gaal yi di dem solution bi mu ngi ci toog réew toog ci réew mi liggéey. Mm-hmm. Hmm? toog fi tekk fi. toog fi tekki fi. Mm-hmm. loolu. du message du message. ce que jotul itam kàddu yi ñuy wax ñu matérialiser ko. waaw xam nga tey jii euh, immigration immigration bi cala immigration. clandestine bi clandestine bi. Mm-hmm. Euh, bu ñu jëlee ci ay vole ñi ko causé mooy état bi fi jóge parce que dëkk la boo xamante ni peche bi doxatul ñoom ñoo njaayoon géej gi loolu jur na exode euh, village pêcheurs yëpp seen doom yi parce que miin nañ géej xam nañ yoon wi yaa ngi dégg waxee danga nga naan gis ñu dem di def ci géej quinze jours ñii di jours di dem fu nekk ci àdduna bi bu demee ba nga xamante ni ñoom seen géej mënatuñ ci am dara ñu jël gaal dem it dem Espagne wala dem tu loolu mooy euh, euh, échec gu politique maritime bu état bi la ko agriculture bi doxul agriculture boobu tax na village yi benn góor toogatu fa mm-hmm. élevage bi doxul yow dëkk bu fekkee ni agri bi doxul élevage bi doxul agriculture bi doxul léegi jeunesse boobu yëpp nekk ci village xam nga dañuy mujj ñëw Dakar mm-hmm. moo tax Dakar surpeuplé te su boobaa bu ñëwee dakaar liggéey bi ñuy mën a def direct mooy jënd ak njaay moo tax dakaar fépp marchand ambulant la ak ay table. Mm-hmm. di ci dikk ça va nous permettre de yaa ngi dégg wax jëm la situation bi am ci Sandaga Colobane. yaa ngi dégg mm-hmm. léegi loolu moom moo indi situation bi. effectivement tu vois léegi nag loolu politique bu échec la. Mm-hmm. de la part de de l'ancien régime. oui oui parce que mosuñ financer agriculture. mësuñu financer agriculture bi mësuñu financer pêche bi mësuñu finance élevage bi. Mhm. tu mhm. léegi à fin lan lay jur. te demoon nañ ba jeunesse bi ñoom gisatuñu woon seen bopp ci dëkk bi. Mhm. ñoom fenn rek lañ gisoon seen bopp muy lan réew ma. génn réew mi dem tekki ji. loolu rek lañ gisoon. amatuñu woon yaakaar. pour toog ci dëkk bi gisatuñ seen bopp ci dëkk bi donc liñ mën a def mooy dem seeti feneen. te loolu li ko li ko causé mooy échec politique boo xamante ne état yi fi jógee ñoom ñoo échoué politique de l'emploi politique de la jeunesse yooyu yëpp dañ ko échoué mhm. dëkk boo xamante ne ar mooy li artisanat bi doxul pêche bi doxul élevage bi doxul agriculture bi doxul mhm. mhm. culture bi doxul sport bi doxul culture bi doxul sport bi doxul mais culture bi tamit bëggoon naa ñu waxtaan ci un euh, jàpp nga ni avec ce nouveau régime les piliers sont là pour développer la culture. man jusqu'à présent nag bon amaguma occasion pour wala gis ministre de la culture gisaguma lu mu tegagum loo xamante ni c'est pour euh, réformer la culture ou amener des opportunités pour les hommes culturels quoi. Mm-hmm. gisaguma ko quoi. dafa mel ni instant le ministre de l'agri de l'agriculture moom moo. moom moo dominé scène politique bi ma effectivement Mabouba. Mabouba. <laughs> il est partout de. oui gisaguñu ministre de l' agriculture gisaguñu ministre de la jeunesse et de la culture gisaguñu ko quoi gisaguñu leen ba xam lan lañ ñuy proposer quoi. Mm-hmm. yan solution lañ indi ak lan mooy seen politique général quoi. Mm-hmm. yooyu yëpp gisaguñu ko donc euh, ñoo ngi xaar quoi en quelque sorte. am am na solo alors euh, sànq rek maa ngi ko doon laaj ci euh, Serigne par rapport ak euh, nomination bi nga xamante ni euh, peut-être waa parti Pastef ñu ngi jàpp ni euh, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa xaw a retard un peu ci nomination yi ba tax na tout sama on a vu Mamadou Lamine Massaly bi nga xamante ni moo démissionnel boppam Euh, ak d' post postes yi nga xamante ni ba léegi les anciens directeurs généraux yi nga fa tegoon ba léegi ñu ngi fa ku ci mel peut-être IPRES ak Amadou Lamine Dieng bi nga xamante ni mooy DG IPRES ba léegi moom moo fa nekk donc euh, on sait pas encore bilan bi ci lan lay lan lay lan la wéeru xamaguñu lan lañ liggéey donc ñii ñi ngi démissionné di dem peut-être mission d'audit yi nga xamante nii son excellence wax na ko ak euh, waa IGE yi nga xamante ni peut-être dinañ leen wàcc sur le terrain pour ñu def liggéey boobu euh, itam peut-être euh, waa Pastef foofu la ñu bëgg a interpeller son excellence muy ñu tuddee ko l'équation des nominations nomination yi yéex na changement poste yi itam yéex na. Hmm, waaw mais nag xam nga nit ki moom doo doo ko jiital ba pare di ko wax fan lay jaar mhm. il faut éviter mu mel nii ñoom bu ñëwee dañu war a def ravage wala ay règlement de compte. Mhm. yooyu il faut l'éviter quoi il faut éviter bon président Diomaye président sénégalais yëpp la même président ñu farul ñu ko ñu àndul woon moom xam la administration continuité la ko donc bu ñëwee bu fekkee ne même dafa war a renouveler administration bi mais daf koy def avec laar xam nga bu dëppook égalité ak démocratie quoi mm-hmm. donc euh, moom moo xam ni muy dawale moom moo xam ni muy procéder avant avant ci kanam donc confiance rek lañ ko mën a may ko moom mu moom mu liggéey lu ci demee ni Mamadou Maline Mas Masali nag moom moom xam naa ni bon xam na ni gars yi ci moom lañ jëm si <laughs> léegi nag waaw balaa muy laajoo ko fekk di ko raxas. mu génne boppam ko xam nga Cees waa la Cees waa yi dañuy intelligent quoi. nitu Cees la. nitu Cees la quoi Cees waa yi dañuy mën a anticiper quoi. effectivement il joue le jeu quoi. maa ngi nuyu sama gars yi Cees parce que weekend bi maa ngi woon Cees quoi. macha allah samedi bi woon Cees. Mhm. benn jarbaat bu doon ngénte. Mhm. donc ma demoon ci ngénte li donc euh, j'ai passé une belle journée là-bas quoi. gis fa yenn mbokk yeeg yenn taalibe yeeg yooyu xam nga man sama moom père est de Thiès. ah, ah, ah bon ah, bu neex Thiès est magique ah. oui oui buntu dépôt la dëkk quoi. d' donc ay nuyu aussi foofu suma. waaw cheminot yi la. oui ay mhm. euh, Ndeye Fall suma cousine euh, Ndeye Mati Mamadou. Mhm. Euh, macha allah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa Thiès yi quoi sama mbokk yi. mais xam après def naa fi une journée de débat politique. tàng ah, ak gars yi ah, foofu moo nga ma woo <laughs> nuyu ñoom mhm. ñëpp quoi waa Thiès yi. moom Massaly moom je pense que dafa anticiper quoi. effectivement anticipation la def. anticipation donc donc vous faites partie de ceux qui pensent que. Euh, direction yi du ñëpp la ñu war a changer bu ñu gisee kuy liggéey dama lañ la fa bàyyi nga liggéey. ah ouais normalement logiquement. bu ñu changer à base des noms et des couleurs des partis nañu changer à base de compétence yi ak résultat yi ko ñu gisee direction boo xamante ni ka ko gérer na ko gérer baax na mu mm-hmm. ngi liggéeyal Sénégal gestion bi amul lu ñu ci wax kañ pourquoi ñu war ko changer bàyyi mu liggéey. am na solo. Mm-hmm. alors euh, loo junj sànq itam ñu war koo waxtaanee muy euh, déguerpissement yi nga xamante ni. Euh, am na ca njëkkee ca kolobaan mhm. ñu nemmeeku ci nemmeeku Sandaga mhm. affrontement nag jib fa mhm. maire bi itam génn na wax euh, Aliou Ndoye yëkkatey kàddu mel ni euh, daa kontaanul benn yoon ci les ambulants yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ak seeni doxalin d'abord principe bi parce que am na ku may dégg muy laajte lan moo tax durant dix ans ñoom ñu ngi fii kenn yëkkatiwu leen ñu xëy tey tey rek bëgg leen a yëkkati waaw loolu tamit question bu logique la ko mm-hmm. parce que xam affaire bi li xew Colobane moo xewaat foofu. Sandaga parce que buñ ne la ministre de l' intérieur dafa joxe benn circuit. Mm-hmm. jox ko préfet yi ak gouverneur yi. Mm-hmm. pour ñu dégager euh, voie publique voie publique bi quoi libéré ko léegi euh, préfet yi ak gouverneur yi ñoom ñoo war a collaborer ak maire yi. mairie après ñoom ñoo war a diriger loolu quoi parce que tamit euh, gars yi fu ñu teg taabal di fa jaay dañuy dagg juuti te xam nit ki bu fekkee ni kii fu muy teg di jaay. Mhm. waru fa teg jaay waroo ko daggal juuti. déedéet waroo ko daggal juuti. an ko war a wax ni fii da fu fi jóge bu fa bu fa xëyee waru faa gont bu fa gontee waru faa fana responsable moom mooy. état bi mairie mairie. mairie la mairie. la mairie. d'accord mairie ñoom ñooy indi problème yi. Hmm. waaw xam nga déjà Sandaga maire maire de Dakar ak maire dakaar Plateau am nañ ci conflit. Hmm. ci ci moo tax bañ ko tojeex léegi da ngay gis ni ba léegi parewul tu hmm. euh, donc euh, maire yi ñoom ñooy créer problème yi ko ñoom ñooy dagg place yi ñoom ñooy dagg juuti yi. donc illégalité bi ñoom ñoo koy tàmbale ko parce que mairie à la fin ñoom seen politique yëpp mooy remplir seen kees yi ko donc te Sénégal mooy li ma la wax échec agriculture bi échec u politique de l' agriculture politique de l' artisanat échec u politique euh, de euh, de pêche mm-hmm. élevage échec yooyu yëpp loolu moo jur ñoom ñu jeunesse bi yëpp ñëw focaliser wu Dakar. Mhm. ku ci nekk di jéem a débrouiller pour xool nooy def pour survivre. Mhm. loolu mooy réalité Sénégal quoi. Mhm. donc euh, loolu bu ñu ko bëggee dindi il faut que ñu planifier ko ko il faut que ñu planifier ko quoi donc euh, voie publique bi nag moom foo xamante ne ay oto ñoo fa war a jaar wala ay nit ñoo fa war a jaar. kooku vraiment waruñu woon sax seetaan ñu fay tegi table quoi. waru ñëwoon seetaan ñu fay tegi table. solution bi eh, jamono ji lan la war a doon. du nekk solution boo xamante ni day gaaw parce que solution bi mooy créer ay emploi wala créer ay marché yu bees. Mm-hmm. waaw créer ay emploi wala créer ay marché yu bees loolu mooy solution bi ko créer emploi fexe ba relancer waat agriculture bi comme ni nga ko waxee. non non du gaaw solution bi du gaaw. solution mhm. bi du dëgër pire te Sénégal dafa am benn psychologie mën nga leen dëgër pire mhm. tey bu subaa ñu ñëw. lalaat mën nga leen dëgër pire tey bu subaa ñu ñëw lalaat. donc euh, du yomb quoi du yomb du gaaw du yomb du gaaw quoi. te mënoo dëkk di xeex ak ko quoi. mais ce que jàppoon ni waroon nañ leen a wutal ay site de recasement laata ñuy. moom laa wax def bien vrai que nag du yoon. Mhm. Euh, loolu du. du du cëru état du force. Mhm. mais comme ni ko sëriñ waxee sànq rek moralité la donc lu ñu teg ci moral rek. non da nga leen di caser da nga leen di organiser dëkk dañ koy organiser. Mhm. dëkk da ngay moderniser marché yi dëkk da ngay moderniser marché yi. Mhm. ba pare wëlbatiku aussi euh, euh, fexe ñu respecter les règles et les ordres. waaw loolu moom c'est l'état qui doit faire ça. mais nag il faut que nga solution. il faut nga solution mooy que ni il faut que nga fexe ba euh, nit ñi toog fañ dëkk liggéey fa. waaw il faut nga fexe ba nit ñi toog fañ dëkk liggéey fa. loolu jëriñ dina jafe de. non du yomb du yomb parce que tamit bon tey ji yow tey ji fayul trois fayul fayul deux cent mille fonctionnaire mhm. boo ci boolee immi boo ci boolee privé bi yëpp matuñ trois cent mille boo matuñ cinq cent mille. Mhm. ci dix huit million de de population. Mhm. yow ma li ngay fay matul sax un million. Mhm. dix sept million yi ci des yëpp fan lañ jëm lan la ñuy def. Mhm. Hmm? njëndax njaay il se débrouille ñooñu noo leen di organiser. Hmm? tey jii bu fekkoon ne dañu ne léegi dañuy taux de chômage bi temps la bu ne taux de chômage bi temps la dinañ mën a xam ñooñu naka lañ leen di utiliser. mais fii fii taux d' emploi bi la ñuy parce que taux de chômage bi boo koy compter doo fi jóge. <laughs> tu vois boo daanaka boo xam ne taux de taux de l' emploi nga taux de chômage. Ah, mi ngi noonu. Mm-hmm. te xam nga bu fekkee ni taux d' emploi bi ay ay ay cinq cent cinq cent mille la Sénégal yëpp. Mm-hmm. <laughs> ci dix huit millions kon taux de chômage bi ñaata la. te te bu ñu fàtte ne nag ñii nii ils sont dans informel te Sénégal informel bi moo ko yor. informel bi moom moo ko yor moo koy dundal parce que yow sa population débrouillez ñuy débrouillé wu nag pour pour pour dund soit ñaar moo mën a am illégal illégalité bi am ni ci marché yi ak ci voie publique yeex yooyu mm-hmm. mais est-ce que yaakaar naa sax moo gën dem ci géej gi di dee voilà waaw mm-hmm. ah, moo gën fuuf kay ah, moo ko gën de ah, kon ñoom nañ jéem wut solution nañ jéem a fexe ba jaami euh, mën a mën a mën a mën a am liggéey toog fi ñu dëkk mm-hmm. liggéey fa. leneen itam lu ñuy laaj mooy euh, les les ministres yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk euh, dans la coalition Diomaye ñenn bokk ci parti Pastef dafa mel ni actuellement dañu nemmeeku un silence. mu tukkee ci ñoom ginnaaw attaques yi nga xamante ne opposants yi ñu ngi koy def jëmale ko ci Ousmane Sonko bien vrai que nag Ousmane Sonko mooy bouclier bi nga xamante ne moo taxaw pour defendre euh, son excellence Bassirou Diomaye Faye mhm. daanaka wax yëpp moom ci kawam lay dal mais les autres daal les autres ministres euh, dafa mel ni kenn déggu déggu leen. amee ah, lu seen yoon ci loolu. ministre kay dañ ko fal pour mu liggéey faluñu ko pour mu politique. Mhm. non ko fal pour mu liggéey faluñu ko pour mu politique. Mhm. l'ère de la politique jeex na. Mhm. et puis ban opposant moo fi nekk di dal. yooyu y a des opposants y a. comme y a Bougane. Eh, ay opposant waay. Ah, lu tax Bougane n'est pas d'accord euh, les principes yi nga xamante ni moom la. Bougane daa Bougane d'accord sax ak boppam. <laughs> oui d'accord. <laughs> mais jërëjëf jërëjëf nangu nangu nangulal nangulal lu muy opposé Bougane lu muy opposé Bougane lu mu mës a gañe lu fu mës a gouverner hmm? Bougane kay c'est un aspirant du pouvoir. Bougane mais benn société boo xamante ni day day day day day ci emploi au Sénégal. Hmm, ba pare du fay taxe. no fay taxe bi daanaka entreprise de presse yu bëri duñ fay taxe. Ah, voilà ah, ah, kon vous am na ñoo xamante ni ñu ngi fay mais dañoo dese. <laughs> <laughs> mais parlant de Bougane Bougane. mi mi ngi mi ngi góorgóorlu bon en tout cas pour les opposants man ñi ma gis a gum ñu demoon ci élection présidentielle yi euh, moom demuloon mais moom donc ngay dégg muy wax. ah parce que tête vide la quoi c'est les bruits vides font des bruits yow koo xam ñoo xamante ni defaguñ fi trois mois nga bëgg leen critiquer di leen juger ci ay bilan Bougane du opposant waaye amul xam-xam bi mënul opposé wu Ousmane Sonko wala du opposant mënul opposé wu ak Ousmane Sonko te du opposant mënul opposé wu ak booy yi quoi booy dañu ko ëpp dimension quoi booy dañ ko ëpp dimension président ak euh, Ousmane Sonko kooku du làmb quoi ñoom wax buggaan du làmb quoi du làmb ah boobu ak léegi ci opposition moom rek ngay dégg de. dëggoo li ma la wax. Mhm. xam nga Thierno Bocoum jéem na barki démb wax. effectivement. lan la ko Ousmane Sonko tontu. tu as raison. Mhm. passe. <laughs> Abdou Latif Bali Abdou wax na jéem mhm. na. moom moom bu dee cent jours sans faille moom moom être un euh, euh, collaborateur collaborateur Macky Sall la mhm. conseiller pendant combien mhm. donc moom il était un mauvais conseiller quoi donc c'est lui qui a conseillé. fin mandat bi la démissionné. waaw comme li moom moo conseillé woon Macky Sall mu tuer toutes les Sénégalais. alors euh, leneen itam mu tukkee ci le premier ministre Ousmane Sonko muy renégocier les accords yi nga xamante ni moom la son excellence euh, Macky Sall bi fi nekkoon président xaatimoon teg ko donc le premier ministre daal jàpp na ni contrat yëpp dañ ko war a renégocier càmbaraat contrat yi bu baax a baax mooy accords yi. ah na ko ah. Mhm. waxoon na ko non waxoon na ko bu fekkee nii contrat yi dañ ko signé mu nekk. Euh, mu nekk euh, loo xamante ni euh, Sénégal du ci gagné dara. Mhm. wala Sénégal lim ci am mun na ci am lu ko ëpp. Hmm? Mhm. pourquoi pa mu ñu renégocier ko waat. Mhm. parce que tamit moom mu sàmm sunu alal moo tax ñu teg ko fi non. sàmm sunu alal sàmm sunu bien. bu fekkoon ni dafa am baadoolo boo xamante ni intérêt boppam moo taxoon mu jaay sunu alal tey la ko. ñu dindi ko fi tey moom indi ko fi dañu bëgg mu yee salaat accords yi. tubaab yee gars yi xamante nañ. xamante xam nañ lu jaar yoon ak lu jaarul yoon ko dafa fekk ni gis nga tubaab njàngum tubaab maa ngi koy faral di wax gars yi yooyu eh, Abdoulahat moom la doon wax ku mën a nax nax ko fexeel ba bu la nax te koo nax bu mu yëg ni nax nga ko loolu mooy ñàngum tubaab. <laughs> kon mais mais Ndiol da nga da eh, ni jàngum tubaab amul njariñ am na njëriñ mais tubaab il est égoïste. tubaab boobu da lay tax jël li nekk ci yow de doo ko yëg. xam nga yow def nañ la esclavage. pendant combien de siècles ah. def la colonisation pendant combien de siècles. nga yaakaar ni ñoom bu doon seen sago colonisation ak esclavage dina deñ colonisation boobu ak boobu la ñuy pratiquer sur d' autres économie. te jii xam nga la franc CFA ñu ngi nii am problème pour génn si hmm. te yooyu c'est des c'est des c'est de la colonisation et domination non hmm. Hmm. am am na solo alors euh, leneen itam mu tukkee ci la coalition Benno Bokk Yaakaar euh, ci lu soxal DPG ak coowal assemblée mel ni ñoom dañu bëgg euh, indi daal l'article 87 bu jëm ci suppression dissoudre parlement bi moom man moom bu ñu ko dissoudre tamit du ma ko rëccu. Hmm. waaw donc man reconnaître ma député yi ko député yi même reconnaître ma hmm. député yi dañu tooñ Adama. ci naka. député yi. Hmm. ñoom ñoo fi deux mille vingt et problème yi ba mu fi amee. capitaine gendarmerie dem yóbbul convocation Ousmane Sonko. Ousmane hmm. Sonko ne leen man député laa dama mbaraanu kiiraay. effectivement jaar leen ci yoon bi ngeen war a jaar avant ngeen koy yëkkati ñu dem jaar foofu député yi def fast track. Hmm. dindi dindi mbaraanu kiiraay bi. ci seen mbokk parlementaire. waaw hmm. yaa ngi dégg wax ji ñu jóge ci loolu. loi parrainage député yi ñoo ko voté loi bi nga xamante ni moom mooy moom mooy tax nit ki buñ la tëjee six mois de sursis ak amende temps dootoo da ngay perte say droit civique ku ko voté du député yi hmm? mm moo voté loi bi mën a permettre Macky Sall mu mën a renvoyer élection yi ak dix heures de l'ouverture du député yi hmm? donc li ñu yàq moo ëpp lu ñu defar. mais meurtre yi fi am yëpp ñoom complice lañ ci seen loxo da ci takk. donc dissolution assemblée lu war la. lu war la parce que tey ji ñoom légitime du ci xam lan moo tax. Mhm. parce que tey jii ba fekkoon ni dañu couplé woon présidentiel ak parlementaire. ci benn jour am ngay voté présidentiel voté parlementaire que ñoom ñii dinañ fi nekk ba léegi. Mhm. xam nga ñi kon élection moo leen fi bàyyi. parce que ñoom dañ doon wax ne ay député Macky Sall lañ. Macky Sall lépp lu mu bëgg def tamit foofu lay jaare pour def ko mhm. léegi nag mi ngi noonu léegi Macky Sall dóor nañ ko avec cinquante quatre pour cent donc premier tour donc seen kii daganatul ñoom seen mhm. j'ai une question nag bu bokkul dara ak debaa bi est-ce que mhm. mën nañu xaar jëwrin bokk ci élection législative yi mun nañu xaar jëw jëwrin bokk ci élection législative yi ñu jëm. waaw ça dépend rek parce que bu euh, loolu mooy suma intention ah. loolu mooy suma intention bëgg naa ko à part que je me sens être député du peuple. waaw mais bon bu fekkee ni j'ai les possibilité de remplir toutes les devoirs. Mhm. parce que gars seen caution bi dafa cher ah peut nga dugg dans la coalition Diomaye euh, dans la coalition Diomaye ànd ak waa Pastef. Ah, donc yooyu yëpp maa mi ngi sur la table quoi. Mhm. yooyu yëpp mi ngi sur la table donc incha allah. avec le mouvement. avec le mouvement Yeeslu. Mhm. parce que euh, man déjà après les élections li ma taxoon li ma dama taxawal slogan ànd gunge Diomaye. ànd gunge Diomaye. waaw après les élections. waaw parce que tamit on s'est on s'est sacrifié on s'en on a combattu xeex nañu risqué nañu suñu vie pour fal pour changement am xam man tey jii euh, état bi bu échoué man je suis je faisais je fais partie des ah responsables. effectivement vous êtes comptable du bilan. de de de de aussi. <laughs> yaa mhm. donc ñun bon naam sax que ni l'état de droit lañ doon xeexal. parce que l'état de droit lañu doon défendre démocratie lañ doon défendre waaw ah. te bon on croyait à, la promesse de Pastef quoi de ces jeunes donc. Euh, on croyait ou bien on croyait da ko gëm wala yéen koy gëm ñoo ngi koy gëm léegi ba ñoo ngi koy gëm léegi quoi. Mhm. te dañ koy topp nag. dañu bàyyi dañu leen bàyyi ñu gouverner dañuy ànd ak ñoom gouverner mais xam nga gouverner daf bëri ay façon mhm. administration bi benn pàcc la ci rek. administration bi mais gouverner da ngay gouverner administration bi gouverner xel yi gouverner xol yi parce que les personnes bu fekkee ni il y a xam nga Sénégal li fi gën a doy waar mooy la corruption si bu fekkee ni la majeure partie des Sénégalais moralement ils sont corrompus comment faire pour développer le Sénégal hmm? waaw qu'est-ce qui te dit yow ñi ñëw bokk ci jomaay président bi yëpp pour jàppale ko ñooñu intérêt Sénégal moo leen tax a jóg. peut-être ñu am ci bonne foi rek. mi ngi noonu njort bu rafet. wala ñu am des objectifs définis que ni am na ñoo xamante ni duñu dugg ci gaal guy suux. Mhm. am na ñoo xamante ni dëkk bi politique la ñuy dundee. Mhm. yooyu yëpp a ci biir. te lii ñuy defal ni defaluñ ko Diomaye defaluñ ko sonk Sénégal lañ koy defal. Mhm. Sénégal lañuy xeexal pour suñuy doom ak suñuy sët ñun bon déjà euh, xam nga metti na ba pare ko mais lu metti metti metti tey tey tey bëgg nañ mu neex suba te bëgg nañ suba ginnaaw suba suñuy doom ak suñuy sët vraiment mën a affaire bi oyof ci ñoom. Mm-hmm. yomb ci ñoom quoi ba ñu gëm dëkk bi ne gëm ne bu ñu fi toogee liggéey. sàkku fi xam-xam jëf liggéey am loolu moom mooy li nga xamante alors naka nga jàngatee par rapport ak euh, ni euh, parti yi demee te ñu jëm ci élection législative donc dans la coalition euh, Diomaye bien vrai que nag tasul mën nañu wax ni tasul mhm. mais bu ñu demee ci la coalition benn Bokk Yaakaar avec le parti APR dislocation am na fa est-ce que jàpp nga ni ak nii mu demee bu ñu demee ci élection présidentielle euh, coalition benn bokk yaakaar amoon mën nañ ko amaat. coalition benn bokk yaakaar. duñ hmm. am dara. bu ñu demee élection duñu am dara. bu Amadou Ba ñëwee. du am dara. amoon na plus de trente cinq virgule pour cent loolu nii bu ñu du duñu am dara parce que déjà fi mu toll nii Amadou Ba dafa war a lijjanti comptam ak Macky Sall. d' accord d' accord. seen compte et puis Ba doo xam ndax day dellusiwaat ci benn bokk yaakaar wala day créer parti boppam ban bànjeer lay demee ah moom ba léegi waxagul. Mm-hmm. te gis nañ fin bi moom ak moom ak euh, Macky Sall jàppale wu ko. Mm-hmm. Hmm? jusqu'à au dernier moment ci lay doog a joxe ordre pour ñu jàppale ko hmm? mais ñëpp xam nañ ni bu ma bu bu bu bu Macky bu sañoon. day changé dañuy renvoyer ay élection bi mu changé candidat tu vois donc euh, ñëpp xam nañ loolu donc ñoom daal li ñu war a def mooy ñu nañ renouveler ñoom seen parti ko mm-hmm. donc euh, amuñu benn chance pour gagner élection yi ñoom. non non non non non non. est-ce que jàppoon itam biir euh, coalition bi Diomaye président mën na am ay lënt-lënt ci am. bon xam nga sax fi mu toll nii yow man damay wax ni. parce que transhumants yi aussi ñu ngi ñëw nànk-nànk. lan am na ay transhumants yu commencé ñëw. ñu bëgg ñëw. ah am na ñoo xam am na ñoo xam yóbbu nañ seen bopp ba pare. ah est-ce que fat nañ leen. <laughs> ah c'est une question aussi. <laughs> comme ñan comme ñan <laughs> comme ñan. Euh, man j'ai vu Lansana Gagny Sakho. waaw mu jumelé. Euh, dans la coalition Diomaye. non kooku avant la. avant la mais. Oh, euh, ah, transhumant la ah. non non non non. Ah, non non tu te ba muy nekk président ONAS. Mhm. ba ko ba Ousmane Sonko a critiqué gestion bi. bëggoon ñëw vérifier moo ko joxoon na moom moo ko joxoon feu vert pour mu ñëw ñu defal ko defal ko rendre ko compte ci réalité bi yëpp quoi. Mhm. après à la fin mu désiste après à la fin Macky Sall ne ko non. limogé limogé ko ba mu ko limogé nag boobu la dem adhéré ji fële moom moment ba muy metti la dem adhéré ji Pastef bokk ak ñi nga xamante ni ñëw sax ci jomaay président bi ko mhm. waaw ñoom moom ba muy adhéré yàgg na ko. kooku daal mënoo ko woowee transhumant. non non non kooku du transhumant. d'accord euh, leneen itam euh, wax naa ko léegi muy ba léegi ci euh, jub jubal jubanti bi am na ñoo xamante ni daal dañ jàpp ni Ousmane Sonko dafa pare pour defante ak ñoom. comme kan. Euh, mën naa bañ a tur tur. waaw mais xam nga jub jubal jubanti bi mais Ousmane Sonko dafa roj dafa teg ñu dëng ñi. Mhm. ah parce que état dañ la jox dañ la jox alal jox la yat jox la jaasi mais yat bi pour nga jubbanti pour wàcc ci yoon nga tegaat ko ci yoon la non. Mhm. kon kañ Ousmane Sonko sàmm la dafa bëgg ñëpp topp rang bi jub léegi nag moom devoiram la ku wàcc yoon wi mu dóor la yat bi. Mm-hmm. ah loolu te loolu yatu justice la pas yatu Ousmane Sonko. Mm-hmm. parce que justice moom moo war di tranché justice moo war di jubbanti jaami ko. waaw mm-hmm. hmm? leneen itam ci mu soxal ba léegi la visite euh, du premier ministre Ousmane Sonko ca diwaanu Touba ak Tivaouane et j'ai vu des questions comme quoi que lan moo tax euh, Ousmane Sonko ba mu demee Touba mu summi mbaxane bi te ba mu ñëwee Tiwaawan summiwul mbaxane bi. te normal. Mhm. luy différence bi. parce que doctrine nu ñaari yoon yi bokkul. Mhm. moom daf ko comprendre. waaw ah, doctrine nu ñaari yoon yi bokkul. Mhm. te Ousmane Sonko il faut que ñu xam ni xam na Tiwaawan xam na Touba temps mu fay dem ko comportement bu mu bu mu amoon avant mu fay dem avant muy nekk premier ministre mais moom la continuer di fa am. doctrine Touba moom dafa dugg en tant que taalibe dugg fa en tant que premier ministre ak beneen ak taalibe hmm? xam donc te seen discipline mooy discipline murit mooy que ni doo nuyoo ak sa sëriñ ak mbaxane ak dàll hmm. te doo ko nuyu di taxaw mais loolu bokkut ak doctrine tijanisme quoi hmm. donc loolu la quoi doctrine yi bokkul il a fait que respecter les doctrines. Mhm. Hmm? loolu ignorant yi rek ñooy ñooy ñooy wax foofu di bëgg indi affaire seytaane quoi yaakaar ni dafay gën a respecter ñële manque de respect ñii wala yooyu. c'est un débat inutile. amul sens quoi. Mhm. amul sens ignorant yi rek. ñoo beaucoup l'ont pas ne l'ont rek xamuñ sax luy doctrine yi quoi boo leen laajee lan mooy doctrine du tijanisme duñ la ko wax boo leen laajee lan mooy doctrine lan mooy doctrine murit duñ la mhm. Hmm? duñ la ko wax. alors ñu jeexale beneen question ba léegi mu ñeel éducation. Mhm. parce que euh, xam nga ni euh, ñu ngi ci période baccalauréat daanaka yenn euh, résultat yi nga xamante ni jotoon nañ ko def ci premier tour yi génn ñu jàll ci second tour yi ak yi ni mel mais dafa am loo xamante ni dañ ko ci nemmeeku muy les cas de tricherie. Mhm. yi nga xamante ni am na ak ay téléphone téléphones ko nag demande est-ce que jotul itam téléphones yi xale yi di ko yor. ci biir école yi parce que euh, dans certains pays aussi euh, technologie développé na noo xamante ni téléphone da nga ciy jàng da nga def yeneen ak yeneen donc lan mooy solution bi réellement pour mën a mettre fin à ce fléau bi nga xamante ni euh, dafay jël à chaque année nag bu ñu xoolee par rapport ak ni muy demee dafay xaw a am ampleur parce que gis nañu des cas de tricherie yu ci mel ni am benn groupe WhatsApp boo xamante ni dañ fa doon communiquer ñoom élèves yi nga xamante ni ñoo def second tour ak yeneen élèves yi nga xamante ni def nañu baccalauréat ba pare ñu leen doon balancer les réponses waaw loolu moom mooy euh, ngaañ mi quoi. Mhm. parce que bu fekkee ni question bu ñu la ko posé boo ko xamul mën nga ko laaj Google mu tontu la. Mhm. su boobaa day xaw a complexe quoi. waaw comme boo soxlaatul ngay def examen ko mhm. soxlaatul ngay def examen. mais nag bon yi moom phénomène la boo xamante ne depuis que le monde est monde ça existe quoi. effectivement. Hmm, donc euh, heure boo tegee ay règles yoo xamante ni dafay euh, doo tegee ay règles yoo xamante pour contrôle la di nga gis ñoo xamante ni dañ koy dévier surmonter ko. Mm-hmm. donc àdduna moo demee noonu ko mm-hmm. sàcc moom depuis que le monde est monde sàcc day am. effectivement waaw ah, mais donc yooyu c'est à gérer quoi. parce que su du woon loolu pour lan moo tax ñuy ut ay contrôleur mm-hmm. ak ay surveillant parce que xam ne nañ ñu phénomène boobu dafa exister mm-hmm. comprendre mm-hmm. boo duggee ci bus wala ci train contrôleur bi dugg si parce dafa xam nañ nit dina am ñoo xamante ñu fay doomu aadama dafa bëri pexe dafa am capacité wu lu mu xamul uti pexe donc loolu garaawul quoi loolu du actualité sax quoi Mhm. donc d'actualité euh. quoi. Euh, noonu am na solo jëwriñ euh, jaajëfal la amoon mbégte bokk ak yow jotaay bi comme ni ñu koy defee saa su ne. ah mais la ëppee. Arama ñu ngi lay sant di la gërëm. di la masaw si soj bi. <laughs> Ah, on gère quand ah. <laughs> on gère yow kañ jàmbaar nga. ah <laughs> on gère jàmbaar nga di nuyu aussi notre technicien. Lamine Lamine. Ah. di mhm. nuyu aussi Marie bu baax quoi. waaw macha dafa mu nekk ah. jaajëf jëriñ euh, ñi ngi lay jaajëfal bu baax baax jaajëfal itam ah, mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi doon euh, bàyyi xel euh, mm-hmm. di jaajëfal itam Lamine mi nekkoon ci la partie technique ak képp koo xamante ni yaa ngi doon bàyyi xel la M4 TV jërë ngeen jëf di leen dig daje beneen yoon incha allah fii ci M4 TV jaa ngeen jëf mm-hmm.